real mutant active. bisimillah dal leen ak jàmm ci xibaar lundi 6 novembre Pape Abdoulaye Touré di étudiant boo xamee ne rek moom mii di Pape Abdoulaye Touré ba ñu ko arrêté ba léegi daal dinay tool ci ay weeri weer rek ci diggante projet Ousmane Sonko ak Adji Sarr bi ñuy ver génne woon verdict bi rek mun nañ ne rek ca semaine boobu lañ ko arrêté moom mii di Pape Abdoulaye Touré mu sonn lool ca kaso ba moom mii di Pape Abdoulaye Touré nag ma ngay xam ne ne wér gi yaramam daal dinay sooxe lool jamono yi ca prison ba moom moomee sax daal dinañ reprendre rek grève de la faim ba nga xam ne arrêté woon na ko fi nii moom mii di Pape Abdoulaye Touré wér yaram moom di sooxe ba bokk na ci ñu gën a sonn ci prison ba moom mii di Pape Abdoulaye Touré kon daal ma ngay xam ne nag grève de la faim boobu mu arrêté woon daal dina koy reprendre beneen prisonnier bi ñu doon wax ne ko Fall Fleur moom mii di Fall Fleur te ñu woon ko rek ca jamono yële passé moom mii di Fall Fleur daal dina rek commencé waat euh, grève de la fin ba nga xamante ne moom la arrêté woon.